ba ngóob ma jot bu ngóob ma jotee nag dinaa wax ñi koy góob jëkk leen dindi jëmb bi takk ko ay say lakk ko waaye ngeen semb dugub ji ci sama sàq Yeesu waxaat leen beneen léeb ne leen nguur yàlla aji kawe ji dafa mel ni doomu fuddën bu nit jël ji ko ci toolam doomu fuddën moo gën a tuuti ci jiwu yépp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 simon ak yuda te ay rakkam yu jigéen ndax nekkuñu fi ak nun lii lépp nag fu mu ko jële kon ñu daldi koy xeeb noonu yéesu ne leen des na fay daal yonent waaye du ci réewam ak ci këram te yéesu defu fa kéemaan yu bari ndax seen ngëmadi